la ko waral tam nee naa bu ñu demee ci biir waxtaan bi ngeen ci xam dara ndax koo xamante ni àdduna wërngal këpp fenn fu ci nekk ay seede ji ma nga fay jóge jëm si ci jëmmam ju tedd ju baax ji macha allah rabbi ñu gën ko xam ci docteur Mouhamed Watt moom lañ seet si bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam jukki ko fi rek jagleelaat ko askanu Sénégal rawatina suñu mbokk internet yi xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers senflash.com kon docteur ñu ngi lay nuyu di macha allah di la dalalaat ci sa euh, émission bi. raw ñu ngi lay fay di dem dellu ñuy di la gërëm di la sant di la ziar di la ñaanal yàlla jàmm asalaam ak tawfiq di nuyu mboolem téléspectateur ci biir réew bi ci dalal jàmm ci kër gi di leen bismillah jërëjëf docteur ci nuyu bu am solo boobu macha allah rabbi su ko defee rek xanaa njëkkanteeg waxtu wi ndax gannaaw jot gi ma matewu ko waaye mu néew mu bëri fi mu daanaka euh, ñu profité rek am fi dara ci aslëf rek euh, doon doon nañu neex tey ñu xam kan mooy docteur Mouhamed Wa xool cosaan bi ak euh, li nga xam ne suñu borom jagleel na ko ko ndax dono la gëstu la wala nu mu demee ci yow nu mu dikkee waaw baad aoudu billahi samilalim min alcheytan irajim bismillahi arrahman irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ba ñu waxee yàlla nañu yàlla fal kàddu yi mm. suñu dënn yi yombalal ñu wax ji mm. Euh, ndax wax yombul te dégg-dégg itam yàlla def ci ñi nga xam ne ñu déglu mu man ci am mm-hmm. euh, docteur Mouhamad Wade di euh, jaamu yàlla la mm-hmm. itam comme ni ko alxuraan waxee rek te muy jullit di doom jullit itam mm-hmm. yàlla may ko ci fànn yi nga wax yooyu yëpp mu di xam-xam bi lu ñu doon am na ci lu ñu gëstu am na ci mu am ci la nga xam nag jagleel yàlla la ñu ko defee yooyu yëpp fekk na baax boo déggee docteur moom. Mhm. sa xel dafay dem ci wàllu paj waaye sa xel dina dem tamit ci wàllu maanaam xam-xam bu sori. Mhm. bu ko defee ñu fàttali li ñuy def te muy maanaam ilmul asraar. mooy mhm. science suprême islamique mu nga xam ne xam-xam féete ci càppaandawul mboolem xeetu xam-xam ci lislaam muy wàllu ilmul baatin. ilmul asraar yi alquran ak maanaam def. bu defee am na ci. ay pàcc yoo xam ne ci wàllu seet mu am ci pàcc moo xam ne xam ci wàllu faj mu ci pàcc moo xam ne ci wàllu baatin la mooy la ñuy wax ci wàllu ñaan yàlla incha allahu taala loolu dañ koy def incha allah jërëjëf solo boobu su ma la déggee nga waa ji tudd baat bu doy waar muy science suprême mu doon loo xamante ni est-ce que docteur ci alxuraan dinañ la yem wala docteur dafa am leneen lu mu laa dem ci wàllu saa seen ni ko mën a misaalee daal waaw maanaam science suprême islamique. Euh, dëgg loo xam ne weesu na al alquran. Mm. parce que alquran lépp ci la génne. Mm. tur yàlla yi ca lañ nekk. Mm. waaye njàngale ma nga xam ni moo war pour nga mën a xam ilmul asrar loolu ñu nga xam ni yàlla mayoon na leen ñu daan def ijtihaad. maanaam di gëstu seen biir ak seen biti. ci wàllu xam-xam univers. ci wàllu biddéew yi. ci wàllu asamaan ci wàllu suuf ci wàllu mbindeef yàlla yi. ci wàllu science. ci wàllu médecine mm-hmm. ñooñu nga xam ni ñuy ay nit ñu mag comme ki ñuy wax Muhammadul Ghazali mm-hmm. nga xam ni moom moo génnee li ñuy wax ilmul asrar mm-hmm. te mu teg ko ci maanaam alxuraan teg ko ci turu yàlla yi teg ko ci xam-xamu science te muy lu wër science yi nag dafa boole mboolem xeetu science yi ci astrologie ci astronomie ci médecine ci algèbre ci mathématique mboolem xeetu xam-xam yooyu de ñoo nekk science islamique te moom mooy science yi nga xam ni ñooy doxal addina li ci biir ak bi tey loolu mooy li ñuy wax science ci leeral am solo boobu macha allah rabbi euh, bii question la boo xam ne xëy na bokkul woon ci suma programme waaye docteur buñ ko xoolee guddi yi ñu toll dee gi dafa bëri ci réew mi te nee naa man yàlla rayatul noo ko jàngatee ak noo ko gisee waaw léegi moom dëgg yàlla yàlla mooy li pulaar di wax te alxuraan sax ko wax mhm. te xam-xam tamit wax ko mhm. euh, xëy na nag explication bi xaw a diis mhm. wala compréhension bi xaw a diis ndax dañuy wax ci tukulóor mun ay tukulóor lañu dafa am lu yàlla euh, bind dogal ko ci jaam bi loolu mu am mu am lu yàlla bind waaye jaam mën na dajeeg dogalam mu am mu am la nga xam ni yàlla tudd ko waaye dogal na ko mu am la nga xam ni day dogal jaam bi da koy dogalal boppam mm-hmm. te fekk yàlla dogal ko mm-hmm. ci ñeent fànn yooyu il faut nit ki am ci compréhension mooy la mm-hmm. yàlla mooy bind anna allaha yuhyi moom mooy dundal waaye wa anna amut moom mooy rey itam mom moy dundal mom moy ray hmm. bu ko defee ci biir lolé mu am lamu mu ci may nit moy hmm. ci fann bo mu wax ci buntu ñentel ba nga xamni ni hmm. mu mën dogalal boppam ndax tay ñi bo gisé yalla mu ne nit ki bu fekkente ni xaru nga wala man dakala nafsu mutaammidan fa jazaau jahannam bu fekkee xaru nga wala nga ray nit yalla nee sam pay mom jahannam li tax mu àttee la loolu parce que dalaa bàyyi nga mën dogalal loolu sa bopp. mën hmm. nga kon nag yàlla dafay rey waaye nit ñi tamit dañuy rey. Hmm. oto rey yàlla dafay rey kon nag da nga gis koo xam ni dañ koo rey. Hmm. kon loolu moo waral loolu bu ko defee itam ah, lu am la ndax rey yi bëri nañu jamono ji nit ñi dañuy dal ci nit ñi. faagaagal nag rey leen eh, ci ci anam yu ne nag dégg nañ ko ci réew ko defee loolu daal mooy ci ponk woowu li ñu a leeral am na ci loo xam ne dëgg-dëgg. Mhm. jaam ñi ñoo koy dogalal seen bopp. Mhm. macha allah est-ce que dogal boobu fi mu toll nii docteur nga def ne tey jii ay xabtal ànd ci wala ay jinne wala ay rab wala ñu mel noonu tamit ndax dañ li nga koy defee sago fi mu toll nii. waaw seen bopp dogal gi nag dana nekk loo xamante ni seytaane mën na koy def. moo nekk loo xamante ni loxo. Mhm. da koy def. wala lu liggéey am na ci xam-xam lépp am na ci yoo xamante ni. buñ la xiirtalee ci dara wala ñu xaftal la ci dara. moo tax ñuy ñaax rek képp ka nga xam ne yàlla dénk na la xam-xam ngay jëfee la nga xam ne mooy liy defar parce que ñun defar la xam te moom ñu tax a jóg. Mm-hmm. waaye lay yàq ñu bañ di ko jëfandikoo. Mm-hmm. ndax bëri na ci ñoo xam ne tey mën nañuy def safaan. Mm-hmm. te du doon ci seen teyeef. ndax dañ leen di booleeg la nga xamante ni mën na leen xiirtal ci loolu. mu def incha allah mu am ci la nga xamante ni. mooy li ñuy wax toujours ci pàcc ñetti pàcc yi ma doon expliqué sànq. Mm-hmm. mooy benn bi mu di xam-xam boo xam ne wàllu paj la. Mm-hmm. ndax xam nañu ba ci garab yi nit mën nay jëfandikoo yenn xeetu garab yi. Mm-hmm. effet boobu la lay jox par lu mel ni ay drogue ay yàmba boo ko jëfandikoo mën nga ñàkk sa sago. sago kon loolu dafa am ci garab yi. am ci wàllu ñaan yi. ñaan yi nag mooy ka nga xam dañ lay xaftal ak dal. xam nga kooku moom. dañ laa xaftal ak dara nga def lu bon waaye lee dangaa dugg ci la lay neex mm-hmm. nga koy jëfandikoo ba def ci loo xam ne mooy rëcc kon yooyu yëpp am na mu am ne mm-hmm. euh, ci leeral bu am solo boobu mënta ñàkk fi mu wax dëgg yàlla bokk na ci tamit bii moom xam naa ni fa laay wàcce fa laay jeexale rek ñu daal nga xam ne man moo taxoon jóg bi wax dëgg yàlla mm-hmm. muy xew-xew bi lëmbee àdduna tawat la virus la tuddu xew ci fële ci sin ba dégg na fim mu ma ngay génn territoire Chine buñ ko xolé jangal bi ak ray gu gaaw momit bi moy ray ci ay waxtu yu néew est-ce que tay ji mënu ñu jàpp ni bala la bu suñu borom wàccee fofu wala tay ci xam-xam lan nañu ci mëna indi indil ak lan la ci alcorane wax ci xeetu tawat te jàngoro yu mel non waaw lolu kay dafa leer ndax mom yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam wax na mu ne ma min dain gayri shifain yàlla dellu wax ci alxuraan wa nazzil min alquran ma huwa shifaan wa rahmatun lil maanaam tey jii amul benn feebar boo xam ne amul lu koy saafara. ma tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne talabul ilm walaw bi Chine te Chine dellu si waat na. ndax bëri na ci feebar yoo xam ni fa lay feeñee waaye yàlla dimbal ni ñu ci am tamit ay saafara. te yonent bi ne woon bu ngeen wuti xam-xam dem leen ba Chine. bu ko defee nag Chine feebar génn na fa. te feebar woowule am na lu ko waral. waaye ak lu mu mën a demee. Euh, bala ak nattu la mm-hmm. parce que suñu borom saa su ne mooy indi ay feebar yoo xam ni nit ñi mosuñ koy xam wala mosuñ koy dégg mm-hmm. ndax virus boobu ñuy wax coronavirus mm-hmm. a ah, man de xaw ma keneen mais maa doog a dégg ak xeeti Ebola bi muy xew noonu la fi Ebola ak yeneen ak yeneen bu ko defee nag ci fànn wóole nattu la ndax euh, bëri na ci ñoo xamante ni foofu ay julli lañ taloon nañ di leen faagaagal mhm. di leen sonal waaye yaakaar naa jamono ji yàlla teg na leen loo xamante ni loolu lañ tal que topp ñooñu li di leen sonal mhm. bu ko defee nag liñ ci mën di wax mooy e, feebar la boo xamante ni ñaan alxuraan mën na ci dara ndax e, ñëpp xam nañu feebar bi ñu gënoon a ragal ci àddina mhm. bi ñu gënoon a ragal ci àddina muy la peste kooku ni mu sonnaleewaan àddina ak nit ñi mos benn feebar mos koo sonnalee nit ñi mhm. ndax nit dafa daan amee ñu jël la ber la dëkk ak kenn mhm. ñu dagg sa loxo yi sa tànk yi ndax feebar la xam ne daan lekk ay loxo ba mhm. wala lekk yaram wala nga feebar nga mooy la peste te ay milliers de personnes lay kon feebar boobu dara gënu ko woon sonnal jullit ñi ak nit ñi ci àddina fu mu mën a te am na ci xam-xam yoo xam ne tey ci tur yàlla latiif mun naa koo wax am na ci benn secret boo xam ne bu nit ñëpp doon am coronavirus wala ñëpp doon feebar boo ko sàngatoo yow doo ko am. docteur dégguma la de. ma ne am na turu yàlla boo xam ne latif laa wax. Mhm. am na secret buñ koy liggéeyee. Mhm. kooku dara tax koo jóg lu dul musiba balaa feebar boo xam ne dafay contaminé di dal ci nit ñi boo ko sàngatoo ñëpp mën nañ ko am mayoon du yegg ci yow. waaw ndax coronavirus mën nga koo teg ba. yaakaar naa mënoo ko teg yàlla kenn du ko teg bët na muy fexee ba aar la bu hmm. ko lijjanti defal la nga xam ne mu aar la <laughs> waaye na muy def ba loolu la jot loolu ku ko weddi yàlla ko weddi ndax mag ñi jëfe nañ loolu ci peste hmm. lu ñu prouvé la hmm. peste daan na dugg ci réewu arab bi ak ba nit ñi dañ daan jaxle mais mag ñi borom xam-xam yi yàlla lañ ko feeñalal ci ilxaam xamal lañ ni mbir mi bu ngeen ko jëfandikoo ci turu yàlla bu soobee yàlla ñëpp danañ feebar ci jàngoro ba faatu ay yéen ah, bu leen def. loolu docteur ci leeral boobu xam naa ne foofu la ñuy tënkoo foofu waaye dugg ci leneen tamit ndax mooy li nga xam ne mooy sabab jotaay bi. Mm-hmm. muy surtout wàllu yi nga xam ne yaa ci nekk ci yëngu muy wàllu ñaan ak faj. Mm-hmm. docteur bu ma la laajee ne la fi mu toll nii ci wàllu faj. Mm-hmm. maanaam ak ñaan booy ñaanal doomu aadama bi wala nga di ko faj. ca insaan yàgg ngay faje wala ca aadama yàgg ngay waaw xam nga ñaar yëpp am maanaam tey jii ca bacharier gi maanaam ci eh, nit ki ci jëmm mm-hmm. dafa am loo xam ne loolu traitement faj la pure et la mm-hmm. loolu dafa am ay jàngoro yi xam nit ki da koy rek mm-hmm. ay bopp yu metti ay biir yu metti ay ndigg yu metti ay yaram yu metti am na ci yoo xam ne ci ay ci la sax dañ koy liggéey rek def ko ci ndox nga raay biir bi mu sedd biir bu métti tàggoo nga ak moom hmm. waaw yooyu ay secret la bopp buy métti tamit am na ci loo xam ne bu ñu ko defee hmm. am na loo xam ne moo ci faj nañ fi ay nit ba ñu nekk États-Unis te mënuñ jot seen garab ñu hmm. faj leen par téléphone ci ndig buy métti ñu tàggoo moom ñenn ñi bopp buy métti ko defee am na ci loo xam ne ñu ñuy liggéey rek ci secret xuruuf yi bu ko defee am nu ñu koy doxalee bu soobee yàlla moom ta tawat yooyu le dootoo ko jàmbat ci sa bopp mm-hmm. bu dee ci wàllu yeneen xeetu feebar mbind mën na ci am mm-hmm. mu am ci bu dee ci wàllu baatin nag kooku dañuy liggéey ci wàllu ñaan ci wàllu kurus mm-hmm. mooy fi ngay waxee ci wàllu maanaam euh, spirituel bi kooku moom am na loo xamante ni tamit maanaam bu fekkente ni garab yi nga war a jëfandikoo ndax garab am na fu mu yem lu mu mën ak lu mu tële waaye tur yàlla ak kurus ak ilmul baatin kooku tëliwul dara hmm. ndax am na ci tur yàlla yoo xamante ni buñ koy buñ la koy liggéeyal liñ koy doxalee mboolem xeetu feebar wala jàngoro bu nekk ci yow bu nekk bët bu aay wala cat wala làmmiñ wala liggéey wala korte lu ci mën a doon wala ngelawal seytaane wala rab wala hmm. jinne lépp da koy faxas mu denc ci yow am ci yeneen xeet yoo xam ne mbind lay doon kooku boo ko jëfandikoo mboolem xeetu feebar yi nekk ci sa yaram hmm. mu ci deret yi ci sidit bi ci yax bi wala ci yàpp bi moom tamit da way faxas moom set wecc hmm. kooku moom am nañ ci ay anam yu bëree bëri bëri bëri incha allahu taala allah soo gisee ma laaj loolu dama dama dama dama am suma mbokk boo xam dama la booleeg moom hmm. loolu moom doon woon naa dinaa ko wax ci biir émission bi man moom fi ne dama la cee mere ndax li ma la mere hmm. mooy dama laa booleeg sama mbokk koo xamante ni maanaam bés bu yàlla sàkk daal nañ déggante ñetti yoon maa ñeenti yoon keroog ba ma leen boolee ci diir gu gàtt mu wax la ay soxlaam nga xool ca lan ci xool ne ko diggante bi de gàtt na waaye bàyyi ñu ñaan yàlla yàlla jeexalu dara ba nga ñaanee yàlla jotu yónnee ko dara xaju fi woon mhm. nga ne ko bàyyi ma yoroon la course gi yow demal rek foo ci tool la da ne ma maa ngi toll fi li des naa ko lijjanti mhm. docteur keroog ba mu demee fa muy dem ba lijjanti giseeg ñooñ ak fa mu fa mu demoon gisanteeg ñooñ mhm. ak tey jii may wax ak yow benn yoon laa ko fi jot man jot bi ma ko jot téléphone daf may wax ne ma xamal ma ne ma fi ni damaa amatul jot moom nag moom ma ne mu ne ma xawma lu ma doon ñaanal waaye loola moom a waxatuñ ko ndax maa nga ca bërëb ba fi mu ne aw ma jotu fi mu ne dañuy juyoo maag moom te daan nañ déggante gën kaa néew gën kaa néew ñetti yoon ci bés bi looloo tax ma indi question bi ne docteur moom lan lay fajee ndax insaan yéegi lay fajee wala aadama yéegi parce que loo xam ne yónnee woo ko dara dafa garaaw loolu baatin la am na ci tur yàlla yoo xam ni ismullah alazam da da ci am loo xam ni xëy na ba mënuñ ko fee tudd hmm. ndax da ci am ay mbir yoo xam ne ñun du kooku doom nit woo nañu ba taay yi am tiitaanga ci boppam hmm. nee nu sëñ bi ñun de dañ ñoo nar a wàññi ci liggéey ma ne ko ci baatin rek keroog ba loole rotee suñ nopp liggéey woowu da nga fay des kenn du la fa jëlee ndax tur yàlla ak ismullah alazam boo ko xasee am sëñ bi ka taxaw ci jàkk ji di julli fajar hmm. ba minuit arrêté wul yow nga tëdd di nelaw yaa ko ëppale fa yàlla si <laughs> tur yooyu si baati am na ci tur yàlla yoo xam hmm. am jeexital ci yow hmm. foo toll sa ko tudd wala mu nekk ci yow di dox ci yow nga koy nit mën nay taxaw fajar ba minuit di julli te la nga am fayal la moom mënu koo am ci julli woowu ndax mu aaj ki ñuy wax mu aaj muy saxaaba yonente sallallahu alayhi mas naa tardé parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danaa woo jullit sax suba teel nañu présent mu compté ñan ñoo présent hmm. mu aas mu tardé bi mu tardé yonent bi woo ko ci pet ne ko yow lu waral ngay tardé mu ne chaque suba teel balaa maa ñëw ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi def sept mille fois sàbbal yàlla 7000 fois ma kàbbaal yalla 7000 fois ma sante yalla 7000 fois ma wetal yalla moo tax ma tardé. muy 28000 fois par jour. mu ko lolu bari kay ma jox la ñet juroom ñaari per kesse juroom ñaari per. Hmm. yo xam boko waxe hmm. bindal nañ la yiw ni pep su si toll. est bindal nañ la yiw ni bidde asman si toll hmm. bindal nañ la yiw ni bi ni mbindeefu yàlla mi toll ba aadama ba ila akhir ñi nga xam ne fekkee woo te juróom-ñaari per kese boo doon julli junne julli hmm. juróom-ñaari per yo lu la mala may di yow mënoo wa am kon loolu xam nga ni bokku sa bi <laughs> eh, eh, eh. motax nit ñaa daw di mbëkk di dal di hmm. jaamu yalla du quantité qualité la hmm. amna tour yalla yàlla yoo xamante ni sëñ boo toogee fii nga tudd ci li nga bëgg aaju boobu bu faju ñu ba ñu simmi suñu mbubb jullit gi ñu nekk ci ay yéefar parce que li tax ñu nekk ay jullit gëm yàlla la te yàlla moo ne nabbi ibaad yi na nga xamal suma jaam yi anna al ghafuru rahim mu dellu ne wa ida saalaka ibaad yi fa anni garibun jibu daawata daa isa daani fal yastajibu li wal yumin bi la allahum yarshuduun la wax la allahum yarsudun boo bu fekkente ni da ngay ñaan yàlla mënoo koo gis nga bàyyi nga ndoog nga dem toog ndax yarsudun ndax ñu mën a gëm yàlla tegu ci yoonu yàlla ñu jub mm-hmm. ñun jullit ñi kon bu fekkee kay sànni bal tengs bal tengs bi dellul ci moom na mu sànnee wala kon docteur fi mu ne yow boo ñaar nit moom fi ne ñaan gi moom da koy toog ba mu leer ne fi ne jot na ci fi ne moom mooy waral fi mu ne nga bàyyi fi mu ne wax moom yaakaar naa dégg ngeen <laughs> mais docteur c'est-à-dire fi mu ne inter mbokk suñu mbokk ñi ne bitim réew mhm. niñ leen di tuddee suñu mbokk moodu moodu yi mhm. mais docteur xaj bépp dañ fay jóge dem ba foofu ni ci ay jafe-jafe man bu ma toogee xalaat leen dama leen di ñeewante lool ndax dama ciy gis sama bopp xam nga dajale fi sax alal dajale fi sa ñaar wala ñetti million ñoom ñeent dajale ko dem tukki yaakaar fa. Mhm. dem ba foofa noonu yëf yi métti bopp yow fi mu toll la la fay dundal fi mu fii ci réew mi lay daal jóge waat. docteur ñaata appel ngay jot paas bu leen indi ñu ñibbisi. Mhm. bëri na. mais docteur natt boobu noonu lan mooy waral xeetu jafe-jafe boobu ñu fay nekkee fi mu kon te te lii nga mën ko nii te fi mu ne mënuñoo jot ci yow fi mu lu waral lool. Mhm. waaw bëri na ñoo xam ne alhamdulilah rabbil alamin ah am na ñu nekk Allemagne de ñu ñuy seetaan dañ ko wedd de. Hmm. amna ci si ñoo xam ne France jox nañ leen dañ leen jàpp jox leen kayit ba signé signaloo leen nee leen vol bi 17 heures lay defar mu ne ma bala maa woo kenn yow laa njëkkoo yaakaar yàlla yaakaar la ma ne ko sa yaakaar du tas ci 30 minutes lañ ko ñaanal commissariat bi moom lañ njëkk wax génnal na leen te ëppoon nañu ay 20 30 personnes. <laughs> am na ci tur yàlla loolu tur yàlla la ñun li ñuy liggéey tur yàlla la de. am na ci tur yàlla yoo xam ne bu ñu yëgee sa jafe-jafe bu soobee yàlla bu mu la ci ñaanalee. Mhm. kooku moom pare na ci xanaa beneen ndax yàlla moo ne walillahi asmaul husna mhm. man maay turi ñoom ñooy man man maa leen moom fad'uuhu biha ñaan leen ma ci wazaru lazina yulhiduuna fi asmaihi bàyyi leen ñooñu di werante ci tur yàlla yi wala di ci sikki sàkk mhm. afillahi shaqqun faatiri samawaati wal ard xanaa da am sikki sàkk ci yàlla moom mi bind asamaan te dara téewu mu tiim la bu ko rotaloon sa bopp ñëpp faatu tey ji waaye def kon nag yàlla kenn du sikki sàkk mm-hmm. da ngay fa yàlla ñun duñ dogoo fa yàlla ñi am yàlla dañ koy gis waaw loolu yàlla lu mu lu may la moo tax bëri ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. jokkoo nañu ñoom audio yaa ngi fi mm-hmm. témoignage yaa ngi fi ngërëm ak sant ak ñeneen ak ñeent. Hmm. am na ñu bëri ñoo xam lan leen joxoon sax la ko yëkkati woon. Hmm. leneen waaye fajaale na seen mboolem xeetu bi parce que ñun liñ ciy def lu ne. Hmm. mboolem xeetu gàllankoor yi nekk ci doomu aadama. dañ ñaan yàlla yàlla teg di ko ndax coono yi nekkee dara warul lu dul ay ndog-ndog. te yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam na ne ne jullit maa ataakum min amrin illa bil bu leen mbir dikkalalee na ngeen ko istixaara ngeen xool am yoon boo koy jàpp danga koy saytu mhm. boo demee ba yegg gisoo loo xam olof njaay lépp ko waaye na ko saytu rek mhm. nga xam nooy toogee ak boo war a def ba yàlla dimbali say mbir waaye am jafe-jafe toogaale ko mhm. bugg ko fa yàggaale loolu mën na lay gàllankoor ndax Europe am na tànk woo xam ne boo ko xasee wàcce avion bu duggee ko réew moom gàllankoor ba te ñu bëri ñu dem te xamuñu ko <laughs> waaw docteur dimbale nit ñi ci loolu. waaw ne loolu moom fi mu dimbale ci jàng. bari na ci ñoo xam ñu ngi fay dugg te duggin ma fay duggee boo wax baaxul réew moo mën a dugg naa leen ko baaxee. réew moo mën a dugg booy wàcc avion wàccal sa tànk ndeyjoor na njëkk laal suuf ba pare bu laalee suuf neel rab bi nga ñaan yàlla rab bi mooy yàlla. Mm-hmm. nga ñaan ko nga ne ko na la anzil ni mm-hmm. munzalan mubaarakan wa ant xayrul munzilin kooku secret bu réew. kooku ko xamee def doo am benn ci réew na nga ko duggee ba génn bu soobee yàlla kooku alquran la. waaw yàlla nag allah mm-hmm. jërëjëf docteur ci ci ci ci ci ñaar ci ci ci ci secret boobu tam waaye nga baaxewaat ko askan wi ndax ku ne am nga ci soxla man mii am naa ci soxla keneen ak keneen ak keneen rawatina ñi ñuy seetaan confirmation yi yang koy wax léegi dañ ma yone fukki audio yo xamne ben ku ci nek kenn ku ci nek bokut ak sa morom ci la ngeen doon jëflante neena ku ne man nga abbi ji ku la seede àbbi ku la seede ku ne man nga ko waye fukk ñoo xamanteni ni ndaw ndowuñ ci benn bëre kenn ku ci ne ak réew ba nga nek kenn ku ci ne ak jangoro ja nga xamanteni mom la sé mom nga la doon di santat ci ci mi ngi naan la doon dox ci sama yaram bi yëpp bana fi ne xanaa bunt yi gën a ubbeeku ba ma am xéewal yu ma la yónni ngir bëgg a yegg ci beneen niveau moom la toll moom waaye la mu doon saafara loolu ci yow moom nee na la am keroog ba mu jotee ci bagage moom la gëj a am sax luy dox ci yaram mais docteur mhm. bitim réew gars yi problème këyit problème liggéey bu baax problème mu ba pare ñu fa dem feebar mais docteur ñëpp ñëpp kenn ku ci ne la mu doon di jënd fi mu ne nga am nga saafara ko mbiram mhm. ci diir gu gàtt ñenn ñi jotoo leen yónnee dara mais ban turu yàlla la docteur yor ba mën a saafara la man loolu daal laa bëgg xam moom bokk na waaw da bëgg a xam lu waral loolu mhm. loolu ci xam-xam la teg benn mhm. mooy la ñuy bind joxe yóbbante waaye la ca des loolu baatin la loolu mayu yàlla la xam nga xam-xam booy wuti wala buñ la yéene jàngal la Mm-hmm. ak xam-xam bala yàlla may wala yàlla def la ko du benn mm-hmm. Mm-hmm. ñun lii nii jàng nañ ko gaa doon nañ ci gaa xam nañ ko jàng nañ ko mën nañ ko teg ci yoon waaye da ci am pàcc moo rek bu rëy moo xam ni loolu jagleel yàlla da ci am nag loo xam ni jagleel yàlla kenn mënta laaj yàlla lu tax nga defal lii <laughs> loolu de moom mënta ne moom wax yàlla ndax am na al fadl bi yadillah yutihi man yasha wallahu waasiun alim ngëneel mu ngi ci loxol yàlla. te hmm. fu mu ko soob la ko def. waaye ñun ñu ngi koy sant yàlla. Hmm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne bi ni'mati rabbika fa haddis. Hmm. ñooñu le di ñu gërëm di ñu sant duñ ñu gën a gore te duñ ñu gën a nite ñoom sant nañ ñu gërëm waaye ñun ñu ko delloo yàlla di ko sant ci ngëneel gi ñu defal moo tax yonent bi ne wa amma bi ni'mati rabbika yàlla bu la defalee ngëneel fa haddis na nga ko wax waaye na ko sant du rëy du gis suñu bopp. Mhm. waaye dañ koy sant yàlla. bu ko defee ñooñe nga nekk bitim réew nga wax waaye ñi fi nekk ci réew mi ñooñoo gën a bëri ñoo xam ne dañoo teew ba fii. Mhm. def seen témoignage bala leen yegg si léegi am na ku fi jóge. Mhm. nee na docteur man damay mer sax ndax journaliste yi bu man man maa fa waroon toog posé la ay question parce que man dama am lu ma dund. ndeysaan. dama am lu ma dund ñoom niñ lay posé man maa waroon toog. ma laaj la question yooyu ndax dafa am lu ma lu ma ma jëloon. ndeysaan. waaw parce que dafa am vraiment yoo xam ne da cee nekkoon yàlla dimbal na mu jaare la ndax yàlla mooy saafara mbir mm-hmm. jaamu yàlla yi mm-hmm. jaare ko suñu loxo mm-hmm. ndax yonent bi wa sallam xam na ne loolu ndax yàlla moo ne wa abudu rabbaka ka taraahu fa in lam takun taraahu ka annahu yaraaka jaamul sa borom ba nga mel gis ko gën a kawe waaye boo gis jàppal ni lay gis te moom mooy saafara bi te moo teew ci bërëb bu ne fii mm-hmm. kulli waxtin mahiin bu ko defee ñu delloo loolu yàlla ah continuer rek di jëflante jaamu yàlla yi ci mbir yi nga xam ni seen wërsëg yàlla jaar na ci ñun ci faj seen aajo mm-hmm. insha allahu taala jërëjëf docteur mm-hmm. xam naa ne waxtu bi mi ngi ñuy dab waaye damaa dégg docteur mbooleen li muy saafara yëpp pàcc bu ci ne naam mi ngi fi. waaye dégg naa docteur am na benn mbir boo xam ne képp. moom boo ko xasee ba am ci moom. sa lépp lay boole. docteur loolu laa bëgg xam lu mu doon. secret boobu noonu lan la doon. waaw loolu nag moom dafa yéeme parce que loolu lu tax mu yéeme mooy. Euh, bëri nañu ay ñaan yu baax. wala ay secret yoo xam ni. mën nañ koo jox ku ne waaye duñ doxalee noonu. am sëriñ du doxalee noonu. Mm-hmm. liggéey da nga koy teg yoon ngeen jéggal ma ci kàddu yi waaye dama koy leeral. Mhm. maanaam est-ce que am na benn wéyjur boo xam ne tey danga nga xëy ñaanal sa doom lu bon. amul amul ana ban tey buy xëy amul. Mhm. kon bul topp sa bëgg-bëgg ak sa yéene ci nit ki rek loo jàpp ni baax na nga jox ko déedéet teg ko ci xam-xam. Mhm. ñun bala ñoo jox nit dara. dañuy seet say mbir mhm. bu ñu ko seetee ba pare dañuy gis ni kii yàgg naa dem ci sëriñ ñeent fukki at mhm. sangatu na fu ne waaye laalagul gàllaajam ba léegi loolu moo tax say mbir mën ta sotti na ko bëgg mhm. duñu tëb rek ni way jur ñaanal la yàlla nga am yàlla te loolu wayjur wàllam la mais sëriñ fatkat ak ñaankat dañ koy teg ci yoon da ngay xool nit ki nga xam kii lii mooy gàllaajam Hmm. boko joxe mbirum ne boy man na juddu ba am juroom fukki at dugg ci serigne bu ne sangatu fu ne fekk sangat ba mu war a laal laalo bu ko ko léegi bu ko defee mu ne jaar naa fi jaar naa fi def naa ak def naa waaye dara parce que li waral mooy sëñ bi dafa xam ni lii baax na rek hmm. mu yëkkati jox la waaye est ce que mooy sa mbir hmm. nga gaaw est ce que loolu mooy sa mbir waaw parce que pour nga xam mbir nit ki foog nga xool xam nga moom nit ñëw na fi ma jox ko ñetti sangam benn bu ci nekk ma ne ko reen bi lay àndal ma xool beneen bi reen bi lay ànd ma xool beneen ma ne ko yow lii reen bi mooy sa gàlla est ce que reen bi mën ko sàng mu ne ma mukk ci àddina ma ne reen bi mooy sa gàlla sa ñetti sangal yëpp reen bi rek la ñuy am bu laal beneen reen ba mu ko sangatoo ba ma woowee tara daf mais sëñ bi man li ma laal xanaa du ndoxum kese <laughs> ndoxum kese du sax dara waaw loolu loolu mooy xam-xam. mbir hmm. mi da nga ci xam-xam. Hmm. waaw tey ji nit mën na fee ñëw rek ma xam ne ah ñaan gi kat day toj liggéey ñaan gi kat baax na ñaan gi baax na mën naa ko jox dama toj liggéey bi de. Hmm. waaye la nga xam mooy defar mbiram parce que tey jii boo ñëwee ci mécanicien. mu ne ah yaakaar naa kii démarreur rek la panne te diagnostiqué wul oto xoolu sa démarreur bu baax na hmm. mu yëkëti démarreur bu baax jox la mu la jox baax na de hmm. bul wax bul wax mécanicien sen lu ma jox baaxul hmm. lim la jox baax na waaye lim la jox du loolu nga paan waaw sëriñ yi lim la jox baax na mais du loolu nga paan li nga paan lan la war a jox nga dépanné <laughs> est ce que du tey loolu tax ñu nekkoon coowal problème sëriñ fi mu ne sëriñ dem coow yi yaa ngi koy dégg waaw parce que li war a loolu mooy xam-xam science islamique bi ñuy def du ñëpp ko xam du ñëpp ko mën. maîtriser ko asraar mhm. ak science islamique. Mhm. ñaari fànn yi la rawee ci mboolem xeetu xam-xam. benn mu xam exactement li war ci yow mu dox la mhm. ñaare gi mooy si parce que nit bu ñëwee ne ah, jabar laa bëgg danga wax lu leer doo bind ay ay alxuraan rek di ko jox parce que boo ko joxee wóoru la loolu nga ko jox dama ko ci am lasaraar li mu mën da tënk li mu bëgg bu dee visa la passeport la kayit la séjour la hmm. wala liggéey hmm. nga jël turu société woowu wala turu kayit yi fa muy génnee hmm. nga tënk loolu jël turam liggéeyal ko loolu xëcc ko bloqué ko fi ko bëgg defal ko gàllaaj jox ko mu dem mu am loolu mais du jàng naa daar rek damay bind alxuraan rek damay bind ay ñaan alxuraan lépp baax na ayatul fatiha yaa ngi ci ayatul hifz yaa ngi ci ayatul bayra yi ñu ngi ci aaya kaaraange yi ñu ngi ci fa yàlla di tëb fa yàlla di digg àtte charia lépp ci alxuraan mm-hmm. waaye nit bu ñëwee ne la ubbeeku laa bëgg bu la neexee dina ko aayatul waaye est ce que ko ne li muy lijjël dana ko jot da koy ubbi ba pare waaye li mu bëgg mu soxla ko loolu nga koy ci loolu nga koy ñaanal yàlla mm-hmm. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dina mere ba mere ku koy ñaan ñaan bu général mm-hmm. ñaanu général parce que tey jii yàlla bu fekkente ni man mi maa ngi ni toog may nit yor naa pomme yor orange yor mango yor banane nga ñëw ma ne la ban di ci bëgg waxoo ma boo ci bëgg bu ma yëkkatee pomme bi jox la nga mer bu ma yëkkatee banane bi jox la nga mer parce que xaw ma boo ci bëgg laajoo ma ci ban mhm. bu yàggee man maa lay mere waaw ah. motax yalla dafa ne bu yone dafa jangale ne yalla bu ngeen koy ñaan ñaan leen ko li ngeen bëgg mhm. ba ci kuy talal say loxo mhm. bu dee million nga bëgg neel yàlla may ma million. Mhm. waaye yàlla may ma xaalis may wax. <laughs> bu la mayee ñaar dërëm ah, dëgg yàlla. ah préciser liggéey ci wàllu xam-xam lay tegu. Mhm. bi nit ki bëgg loolu ngay liggéey tënk ko ci lasraara précisément nga ñaanal noonu nit ki yàlla bu toogee objectif boobu atteindre rek seetaatal yow mi liggéey bi nga liggéey njuumte amul waaye boo ko defee rek mu am loolu amul si gisaat est-ce que léegi kon fi ne loolu tax docteur moom dégg naa ba ci këyit moom fi mu toll nii boo ko woowee ba ne ko këyit sàngam laa bëgg. dégg ko li wax ma ne ne ma documento nga bëgg bu dee Italie la wala ne séjour France laa bëgg wala ne visa Canada laa bëgg wala ne ba ci bac sax ne ma bu ma nee bac rek ne ma bac la wala L la boobu laay làqati jox la ko. ko kay moo gën a de. dafa am nga làkk ci ko jox ko ko mu téye. boobu la ñuy liggéey ci turu yàlla du man turu yàlla woowule. Hmm. wër wër boo xamante ni loo def nay nekk jàmm. turu yàlla yooyu wër nañu wër boo xam bu fekkente ni xam nga ko. Hmm. wala nga daje ko xam. Hmm. lam ci nekk nay nekk jàmm turu yàlla yooyu loo ci def amoo ko rek defoo ci lu pérési. kuy nëbb de du ni maa ngi moom. loolu mooy turu yàlla yi. turu yàlla. duñul nak yalla la ak ay turam mbooj hmm. ya ca cay nangu def nako ci xam nga talal yalla lo may ma may bu ko nexe may bu ko nexe hmm. ah. bu may turam afillahi shakku ne la ko jare ci yoni mom fi neela ko len yegg rek mbooj ya cay nangu ñu ci hmm. tur yalla bu ñu wax allah rek boko xaymon ligey ko amna rawhan bu ci nekk bu ñu wax tafara ya yi rawhan bu do ya ak noonu jeul jël la def lepp lo soxla mu ko jënd jënd am na ci xuddaam boo xam ne bu fekkee da ngaa fooyee tur yàlla dañ naan moo tax ñu naan euh, nit ki du fooyee tur yàlla boo ko fooyee yàlla da lay duma balaa yàlla duma la rawaan. waaw ñoo leen njëkk a duma. <laughs> ndax ñoo watt tur woowu. bu ko defee xam-xam dafa am yoon waaye nag ñuy wax nit ñi rek. ba tey lu ci jëmm gi gaa yàlla am na lu ñu jàng. Mm-hmm, mm-hmm. waaye tur yàlla yëngu. wallaay ndeysaan kuy weddi nag da weddi tur yàlla yi. Mm-hmm. alxuraan moom da ngay gëm lépp mbaa nga weddi lépp waaye jëmm ji ku ko xool de amaana sax nga ne ah li di am ndax ñun léegi mën nañoo si même sol suñu teni dañuy liggéey ndax suñu bërëb ngeen ñu fekk mm-hmm. waaye li ñuy liggéey mot li wër ndax mm-hmm. nit du toogee nañu aajum rek danañ fexe ba liggéey aajum boobu tënk ko jox mu demee mu te du luy yàgg sax ah, du luy yàgg mm-hmm. du luy yàgg waaw ah, ndax loolu ay tur yàlla la bu fekkee ci wàllu kuréel kooku beneen affaire la loolu moom baatin cent pour cent kooku kay luñ ci def ci per comme macha allah da nga ci teg bët bu soobee yàlla. tarkal solo émission bi jeex na sànq waaye réalisateur daf ñuy may lool rek fi ne moom la ci tegu ni rek xanaa tey jii ban message ngay ngay ngay yónnee askan bi rawatina suñu mbokk yenn bitim réew ñi ne ci biir réew mi ñi sonn jaaxle bëgg a dimbaliku bëgg a mucc bëgg a ban message nga leen lancé ak kaddu yu mujj ci jotaay bi rek. waaw li ma leen di lancé rek mooy la ma daa wax toujours. Hmm. ñu gën a góorgóorlu gën a bàyyi xel seen bopp hmm. xam ni am lu am na muñ bàyyi ginnaaw hmm. fuñ mën di toll di saytu seen ay mbir hmm. ndax nit da ngay faral di saytu say mbir di gàttanu say mbir di ñaanlu ci say mbir yàlla mi dara tëwul boo ko ñaanloo dana la may li nga bëgg ndax yàlla bu xëyee kenn ñaanu ko addina bi yëpp mu mere ah gannaaw nee na ñaan leen ma ma may ngeen sant ma ma dolli leen yàlla wax loolu ak daaw nii astajib lakum bu ko defee yàlla dellu ne wala yugayyira allahu ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim hmm. man yàlla duma soppil kenn dara ci ay mbiram lu dul moom ci boppam mu bëgg changement woowu la ci moom mu jóg farlu ñaan ci man yàlla ma soppil ko boo newee ci situation boo xam comprendre ko doo jóg nga ñaan yàlla mu changé mu changé la situation boobu loolu kay bul ne yàlla yàlla toog yàlla yàlla bàyyi si amul yàlla daf ne wa jaal naa li kulli shay'in sababan mbir mu ne def nañ ci sabab hmm. boo gisee loo comprendre daal sabab loolu nga ñaan ma man yàlla ma dimbali mu hmm. fekk la ci incha allah taala donc bu ko defee ñu di leen gërëm di leen tàggatoo di yàlla defal jàmm defal ko mboolem réew mi hmm. musal leen te muccal leen surtout ci feebar wóole ak mboolem bindee fi yàlla yi wasalaam jërëjëf docteur Mouhamed waat ci waxtaan bu am solo bi waaye ci leeral bi waaye nee man li ma ci gën a neex mooy fi ne wakkeerlu gi nga xam ne wakkeerlu waat nga ko delloowaat lépp suñu borom solo wa moom mi nga xam ne moo am moo man moo sañ tey def tey dogal waaye soññaat jaami yàlla yi kiir kenn ku ci nekk bàyyi waat boppam xel waaye ca na muy bàyyee boppam xel mooy mu delloowaat léppam ci suñu borom donc loolu dafa doon loo xam ne lu am solo la parce que man nee naa ku ma toogal waxtaan ak yow ba jóg waxoo yàlla waxoo ma yonent bi bu ma jógee dinaa bala ma dellu soit ci yow dinaa ko seetaan parce que dama naan fii yàlla new ko waaye ñi ngi koy làmbaatoo ko jeex ci ñi nga xam ne ñi ngi koy gis ñu koy neppaatu ngir mën a jotiti ci moom kon ñoo ngi ñaan ci dara yonent bi nga xamante ne naalal nga ko askan wi naalal ko réew mi suñu borom defal la ci lu kawe sa njot mm-hmm. ndax bu dul dara nee naa dal gi ko yari ak teggini machallah wala bi kawe na jot lool machallah waye tam ñaanal tam bu baaxa baax mbokk internet yi ak ñi nga xamanteni dañuy top émission bi ci biir senflash.com kenn ku ci nefa mu nekk ci lay bëggam ak yeneen ak mbékam yal yalla yàlla sama borom mom mi nga xamni jéxalu dara japp dara lepp ci dara jey sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam sant leen gërëm leen ñaanal leen jox leen dig dajé inshallah rabbi ci benen numéro ak fajj sa jàngoro ci biir jërë ngeen jëf wasalaam